liggéey la rek nit moom li nga gëm moom faa nga boo boo gëmee dara faa nga def la pour pour mun ciy jot ko te man loolu laa yàgg gëm bu muy nekk GF euh, booy sax dama leen nan tooñ <laughs> daal dama am sama benn copain mu àndal Babou Seye moom moom ñoo àndal fa euh, ñu gis bi biisu chef bi taxaw. ma ne ko baabu biis bi naa si dugg. après mu meloon gaañu quoi ma ne ma yow biis mooy sa objectif ma ne ko su ma si duggee mooy dem jouer jouer championnat. léegi moom noonu noonu jëlee sama objectif yi daal. dans chan kan bi bi man chan bi dafa ma bétoon parce que Pape Thiaw dama jox confiance boo xamante ne. moom ko woon si moom mais bon bi moo ko joxee man tamit dama si di que c'est tamit ma. ma saisir sama sens sénégalais yëpp xam xam ma yalla mm. yàlla na ma yow est-ce que compétition bi nga defoon ci CHAN boobu euh, dafa gën a yokk sa niveau ci euh, CAN U20 bi amoon Égypte parce que bobu aussi on a vu que tu as démarré très fort bon oui c'est vrai que on a Égypte ça m'a catégorie la sama morom <laughs> sama morom fa nek sama morom fa te ñu bari ñoo footballondo ñoom Pape Demba Jikuru waaye bëri dañoo miinante dañoo miinante donc loolu dafa ma jàppale trop waaye loolu dafa ma jàppale woon trop chan bi suñuy mag lañu nekkaloon yooyu mun nga wax mun nga da ruus tuuti da ngay am yenn benn yenn genre complexe mais <laughs> par rapport kaan bi say morom nga nekkal da ngay libre mm-hmm. donc euh, loolu nekkoon suñu loolu nekkoon suñu force bi surtout man dama libre woon mm-hmm. kaanamte am cost boo xam ne tamit cost bu baax la ouverte si ñëpp moom loolu la ñuy jàppale loolu ma jàppale sax